maanaam bagage yi nu yàq nit ñi nu rey moo tax waa ñu war a moytu yenn yi. ma ne nga déglu ma waaw acca. maa bëgg a xam waaw. yow man damaa xam li li li xewoon te nekkoon ci live bi rek moo tax. ah ba pare ba pare vidéo bi du doon en direct quoi maanaam. bu dee am nga xel déglu ko waaw journaliste yi taxawoon day retiré micro. da nga bëgg ba di ko dikk ko comme di ko wax. ok. ok. xanaa lu waay def loolu taxaw ba journaliste yi taxaw ngay dikk dikk li muy wax. ok. léegi léegi. moom moom li ko dund moom li ma lim xam nga xam nga la laa bëggoon a xam léegi nangu nan li nga wax. waaw non non danoo ok ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni maître El Hadj na ko pare naa ci moom léegi